papa Moussa. ah xanaa ya? tey moom kontaan nga bi ma la yóbboo parc am. si kontaan naa trop foofu sax dañ faa dem chaque weekend. ii man jaani laa ragal kan, man dama ragal jaani yow nag papa dafa mel ni gaynde yi nga ragal ragal nga gaynde yi de gis naa la. <laughs> mais nag chérie normal temps nah, yi gaynde dañoo màgg de maknai iya. ih i marah gal jani wai papa mom gisna Ah, papa ya, gara gal de <laughs> papa sabata bu gor ah ma Majapal jappal wala majapal jappal ay wala fi no fi baxna ya i yow dadi nak yow mom boyin yendo chikir girek deranje. papa kamu ini ni gerek rek lay Joko komal bereng mudiri bi rek ah joko mudiri mu de papa sama bang apa am lo loo mel Yaudah, yow daal papa nekul. nga timit waaye mana ak yow rek gi bi bi ah sama tau gue am na lu mel papa tey lo bëgg korea? toggal la ko reer loo togg baax yow ni nga bëggee laax nga na eh wibu xoolal sa tata laajul sama plat de yow la ya laaj mais wax ko sa plat préféré mu togal la ko yow laax nga bëgg bàyyi ma togal la laax rek nag ngay tiitaru nii sama taaw bi ah allo Ceka Thiam ci perruque bi waaw moom laa teg nii nice na trop kay ni nga ko ñëwee macha allah. mais beneen bi laa soxla frisé bi dama war a dem kër Aïda Samb dañ fa am réunion. ngoon d'accord waaw maa ngi yónni sama kii bi sama rakk bu góor bi papis maa ngi koy yónni pour mu ñëw jël si kaw ok papis Papis. Na. ka, Lo. Papis demal la sama salon xarit bi cekk cam nga ne ko Nafi momu yoni nee na nga jox ko ke bi béréb bi dina la ko jox nga indi ma Nu wala damay jang. Papis bàyyi bëri caaxaan way. Tay la samedi suba le dimanche suba mën nga xey jang say lesion num la nexé. damay jang munuma demal do deg. papis léegi lan moo tax su ma la yónnee nga bañ en ah, papis. Nafi bi dama sonn léegi am na laal dew ma loolu nga bëgg a dégg dew ma léegi. yow vrai sauvage na yow soo toogee tey bay ne da ngay jàng man maa la inscrit di la fayal quarante mille tey mënatuma ko ba tax na su ma la yónnee doo dem kër gi am kenn ku ma comprendre ndax na li ma mënoon mënatuma ko. papa yow lii sa devoir la man en tant que sa grande sœur. oh na fi wax ji bëri na nga mel ni sëtu Iran Ndao yow lan la yow xana yalla sax amna fo jaar ak mom lu ñu wax nga ne amna fuma jaar ak mom moo sonol way eh xola wax ci na jeex wala ma nokku la leg man duma sa morom. ak ah, yow. ak kan man. yow papa kan nga saga yaay. deng mu may saga xam. eh jugal jàngi yow romb nga dem jàngi ji yow lan la yow na fi mbay yaa sonn yaa lëj de kër gi mënatoo fee am daraja mënatoo fee am benn loo fee cër boo xam ne nit ñi dañ la ko fiy jox yàqal ma yërmande ki ma daan fayal ndox courant ravitaillement nga yàqal ma loolu lépp ñëw toog. yaay loolu yëpp ndogalu yàlla la man su ma sañoon du ma tas sama sëy. ndogalu yàlla wala sa ndogal yow. di war a tax kër gi man amatuma fi jàmm amatuma fi salaam lu nekk ngeen may def ci biir kër man choisiruma tas yàlla moom moo ko dogal ci man. choisiroo tas yaa ko choisir kay yaa ko bëgg moo tax nga ñëw ne déj ci sama kanam waaye dootoo fi am la neex ci kër gi jàppal loolu kenn dootu la fi jox cër. papa. ça va. papa. moo ngi fa. Ya يعتنمونا فكي نيخ مدارة yaay sama man war naa taxaw fii di la xas di la saaga sa kanamu rakk yi lépp boo rek divorce moo waral li moo lay wan divorce baaxul yaay Ya jamono ji sama njàng moo ngi yàqu ya sama avenir ngi bouleversé wu à cause de vous yaay té dama la jox tor bi sax dé ndax xamna la lepp sama papa la té jamono ji mënuma la wax lu moy dund xamu ci goudi la nek ba ci beccëk ya ñen len luma lay ñaan rek moy nga bañ sey ji fenen nga to xam te xam ni sa doom ngi ñëw papa dëgg la metti na mais jàppal ni ki ma war a xas rek moo ma xas sama yaay moo ma xas sama yaay moo ma saaga moom moo ma ko war a def lii dafa war tax nga gën a ngir ëllëg nga ma fompal samay rongoñ nga gën concentré wu ci sa jang lool rek laa bëgg nga sóoraale mu baax yaay li nga wax lépp dëgg la dama ñaanal rek ndax man say kàddu rek laay sàmm maa ngi dégg dem Selasa. Dia dari ya, dulu kerja. Semuanya ikut. Nafek dari rumah mana lek? Papa, orang ala jok pas ngapain? Amtir. Kira jauh ya? Ya, belama itu, es kamu nggak mau main darah? Lan gebuk, wah. Gemanya main ben aku lari.

si yaa ngi nelaw kay wala da ngaa feebar boy, no booy lan la boy dem naa sama ah, ya, ah c'est super lo lu baax la mbaa jam. ngi ci jàmm sama si jam, sama ya tey nu ma ko fekkee dara boy damaa dem tombe juste sama mam di ko xas di ko saaga si digg rakkam yi est-ce que ba ma fay jóge sama yaay si la ma jox mille francs yi te booy mille francs yi nii woluma ci kenn ku dul yow bul ko jaay te bul ko wéccoog yeneen mille francs ndax mille francs yi nii su ma jaaxlee ba dara metti ma ci lay xol sama xel dellu sama yaay te booy mille francs yi nii bor la bor mu war a fay ji ëllëg moo tax yow rek laa ci wóor. papa dégg naa li nga wax mais dama lay rappeler ci ginnaaw rek bi ñu toogee bi ma la doon wax demal ci sa yaay nga naan ma dafa nekkoon ci ay problème moo tax duma fa mën dem kon bu boobaa dama koy yokk ay problème may la demal rek bi ma naan la demal lii moo taxoon parce que tey jii lim la jox nii du 1000 francs boo war a passé taxi pour ñibbisi de déedéet daf la ko jox pour bor boo ko war a fay moom parce que maa ngi la ko doon wax naan la tey jii nii boo demee bu la gisee dina am problème yu bari yoo xamante si dina ko ci moom yow tamit aussi dina am lu bari loo xamante si dina dooleeku ci yow. te suma ma leen misaal diggante yaay ak doom mi ngi mën leen munaat ak doomam. gis nga munaat buy nàmpal doomam du ko jox wende déedéet parce que amu ko daf koy xool rek mu suul diggante yaay ak doom noonu la mel. kon nag nga la rek boo amee.

la kenn xool nag. waaw mais contane nga ci man. waaw xolal nak teel a la wacc da di man ko papa ka ci keur gi dañuy wéet. lundi bi la da ngay comprendre. waaw damay wéet yow tamit. ko léegi nak waaw kay merci nak gis nga en parlant de papa chéri. euh motax ma bëgg la dénk ben cadeau cadeau bi ma lay dénk. daf ma intéressé trop. ndax man xamna ni jigen jigéen la waaye nag dama bëgg nga bàyyi xel ne oo ma ku gën suma doom ji di Papa bay nga ma ci nag ndax say loxo doy na ma ma bëgg rek nga veyal ma ci moom bu baax a baax baax yow daddi booy wax lii dafay mel ni Papa musa. man wéewuma ci moom te tey bu ma amoon doom may sax Papa Moussa sax may gënal.

yowee eh, gis na la depuis dembu bañ démé pak an ba ñew ngay jaay ak fi mister du dag ma bëgg a ak sa papa bu may waxé ngay leem leemal yow lay waxal yow. tante so gisé ma doxalee noonu démb dafa fekk ne da nga woné lu sa jikko. waaw. papa damaa yow. eh yow laay waxal. ah ay kii ah kii daf maa yab ah ah kii du ma waaye sax ah. Daddy Daddy. da doon génn ci xale yi di fooy moo tax ma ko doon dóor. Zeyna gis nga àdduna koo ëppul ay mbokk munoo koo jëw xam nga lii dañ ma ko doon wax mais man gëw ma ko woon su ma ci teguloon suma bët tey duma ko mësa a gëm wax nañ ma ko nag ma joué suma scénario yóbbul la tey dëmb man ak yow ak papa Moussa ñu dem ba parc an tay ma ñew def exprès fàtte fi suma portable té lépp waxon nañ ma mais jeyna ya ma bet ba ci kanamu yalla gis nga papa Moussa mi. yaayam dama daf ma sëyal sëy bu rafet ma am benn doom yalla jox mako muy suma trésor muy Moussa ma fonk ko trop nak yaayam li ma taqale ak moom mooy sëy waru dàll la fa muy daggee ëllëg kenn du ko xam mais merewuma ko de merewuma yaayam ma jël la indi suma kër tey amul loo ma dul faye lu dul di humilier sama doom di torturer suma doom xale baa ngi nii Zeyna saa yu ma ko tiimee yaram bi day tàng lu ne def naa ko xaw ma woon ne mukk lii ngay dund ak suma doom ci kër gi

mais dootul man dootul nek sama diggante ak yow waaye laisse-moi bàyyi man. waaye bàyyi man. papa lève-toi lève-toi yow nga yaakaar ne kii dina la ko jëndee yow kii moom la gënal fouf kii suma trésor la ñu dem yow tu n'es qu'un las imbécile bu mag nga yow. aussi ay dadi. <laughs>

sa papa ak sa tante buñ jotee mukk té mu juggé ci yow té man damay sam samay cadeau yaay. wa mais loolu dëgg la xam nga yow sama dekkando yi suñu ñëwuloon fi wax ma né sa tante mu ngi lay torturer comme duma ko xam. té yow góor nga sa timidité bi nga nekké mom ngay bayyi da ngay fexé lu la nit def man nga informer man mi sa bàyyi tu vois mais waro tok ni rek nit ñi di la maltraité ba tay bu la fu suma suma ci yamulon mu la ba ray la. pap sama yaay moom waxoon liir yëpp mais papa sama yaay ba ma fay mujj waxtaan nañ te ci biir waxtaan googu mu promettre que man ni du dem sëy ji feneen te yow tamit bëgg naa nga promettre ma que ni di delluwaat ak sama yaay. يو لورنغ بغ ان شاء الله ربي يو لينغ بغ دينا جي تاخو لين رك لاي ديف دينا و شوفور بي تاي مو غونغي لا يوب لا نغا ديم جيلي ساي اي neex baa ngi fi ak kii mën naa way kat. sama yaay. ah waaw ah waaw kay. léegi nga sa jëm ak <laughs> man daal sama maam Badara booy wax ay jalooreem du bëgg rek lu dul vider sama compte may la. ah kaay na kooku li mu def ci réew mi bari de <laughs> li mu def ci réew mi dafa bari de. <laughs> namoon naa la nag sama yaay. waaw ana papis. maman ci jàmm. ma ngay góorgóorlu ca njàng. waaw ma papa. papa wax nga papam bu fi yendoo du nekk lu dul jël seen pele yi la xaw nekk ci moom ak papa Moussa. papa papa Moussa. waaw kaa ñuy sa maam. Bien, ça va Voilà, papa Beau hmm. gosse. papa. joué nga ba pare. joué naa waaw. mbaa xaw ngaa rey sa papa rek. xaw naa kaa rey. très bien. atelier bi moom neex na de. kii de waykat bu bees la. ah hmm. papa Moussa ni nga ma sama. <laughs> gis nga yaay nga baal ma de mais maam yow deret ji ñu bokk su ma ko mënoon a raxas teg na li dama koy def hmm. gis nga maam yow su neexee nga ñëw su naqaree nga dem bëggoon rek lii rek laa bëggoon lu baax lii delloo sa papa rek nekk ci jàmm déedéet maam nga soo ko bëggaloon du baax dinga def yëfu kilifa ñoo dox si waat sëy bi maam yow sama yaay bu doonoon beneen jigéen dina génn ci mbedd mi di def naka su dul noonu dafa fekk ni kay dafa doon yaay ju gën ci yaay te maam yow balaa may dee nga naan danga koy tagg walla yow dangaa teg ni sama yaay ji yaay alal la papa Moussa yow yaay wax ni papa man ci lii laa la yar ensuite sa maam ki jur sa yaay ni ngay ni ngay waxee ak moom ci ton bii nii pourquoi ngay def lii. yaay dafa fekk ni dañoo nekk ci réew moo xamante ni xale bu waxee bu waxul dëgg ñu ne naa fekk la su waxee dëgg nag ñu ne tegg na ndawal. te fekk na du loolu sax de dafa fekk ni dëgg ab puso bu réer kese la mag dina ko for te xale yi dina ko for mais yaay yow gi nga sa yaay ji nitu intérêt bu mag la waaw wuy ma nga continue nga jouer ak sa papa man de pour man sama photo yi génn néeg bi sax. génn néeg bi yow say photo du mës a génn néeg bi yow soo absenté woon dix ans boo ñëwee fekkaat fi say photo du fi mës a génn. est-ce que ci papa Moussa yow. ah euh, euh, laaj ko ba xam. papa ah. hmm? ah. yaay. Hmm. sant naa yàlla bu baax. alhamdulilah. ba ma yeewoo. di gis sama pàpp ak sama yaay ci biir kër gi mhm. jamono jii nii gëm naa ni may doom bu dàq dund ci àdduna bi mhm. ndax lu ma doon ñaan yàlla yàlla defal na ma ko mhm. te papa na leen wax ni erreur bee amoon seen diggante bee paase ngeen moytu bu baax mu bañ see amaat ngeen bañ a déglu waxi noon bañu déglu tamit waxu mbedd mi loolu rek laa amoon si lu ma leen wax. inshallah allah. kon day man mën naa wax ne bi ma juddoo ci suma ndey ak suma baye ba tey mbégte mii ma am tey musuma ko am bég naa trop tey. waaye nag gis nga yow pa Moussa yow yàpp mbuusu gone bu ñu sol yàpp mag nga. macha allah bàyyi sama doom ji. ah man damaa jaaxle di. léegi daal li ma la mën a promettre yow mooy gis nga sa yaay ji duma ko jënde kenn du am wujju du am rakk man la moom la yow la point. waxal loo man ah laaj ko. <laughs> papa. daa xaar leen rek. <laughs> kon ñu xaar boobu. ah ñu xaar ko. xanaa dem bi may ñibbisi la. yaa yaa ngi ku fan yële ci ginnaaw ba ma ñëwee kër ga di la seet. waaw. 1000 francs yi ma joxoon ni ma paas moo nekk nii. jaayu 1000 francs yi. jaayu ma ko te teg si wéccewu ma ko ak beneen. ah. <laughs> ay papa léegi yow 1000 francs yi nga gardé loo ko doon doyee. yaay soo gisee ma gardé woon 1000 francs yi. 1000 hmm. francs yi nii dara su ma metti woon. Hmm. mbaa ma jaaxle. ci laa lay xoolee yaay. <laughs> te papa. 1000 hmm. francs yi nii mooy ma ko ko de. Hmm. sama ndaw tal la si suma amee rak. <laughs> kii moo kii moo doon. <laughs> mais yow yaa taxaw ci bunt bi di yónni ay xale pour ñu may woo. waaw man maa yónnee pour ñu woo la ndax depuis fan yëpp maa ngi lay woo téléphone jëloo sa téléphone. waaw mais tu sais que man ba ma jógee voyage ba léegi génnuma et en plus que ak virus bi ñuy wax ak yooyu te maa ngi communiquer tout le temps ak suma partenaire yi di xool ba xam euh, fan la virus bi toll mais c'est ça maa ngi say appel mais je suis trop pris mais quand même lan la woon. dama ëmb. comment. te sunu waa kër ñu ngi commencé sib man dama ëmb. damaa bëggoon nag nga jox ma 500000 yaa ma gën a xam. mais boo amee kan moo la ëmbal mais yow dof wala lan moo la jàpp wala ay rab la jàpp mais yaa ngi tas tuure sama amul sax 3 euh, mois. sëy da jeexagul ngay taxaw fii naa ma da nga ma yaa ma ëmbal la naa wala dama ëmb mais demal sa jëkkër nga wax ko. tey nga moo mën a wax dama xooli sa jëkkër. waaye ba ñuy sàngoo ci mbaaj ba man ak yow xalaatoo woon lii tey. xam nga la laa la yëgal.

baa dool la nii rek ngeen di def sim man maa ko def man mi war a xool ku ma koy joxo ku ma ko dul jox li ngay bon iñaan iñu niti tey jii nii suñu ma waxoon sama ñaari parent yi dinañ nekkaat walla dinaa yee du gis sama yaay ci biir kër gi non du ko gëm mais booy c'est la vie loolu mooy àdduna te aussi loolu lañ doon ñaan yàlla te dom bu nek bu sañoon tay ji ni bu yewo gis papa mak yaay nek ci biir kër gi séq jàmm. ma vraiment merci. won nga ma xarit bi nga don ci man to si sama frère nga nañ ñaan yalla rek suñu and bi sax suñu domi de andé non inshallah non lay démé sax te kenn du ko sa copain ñi leen ñëw naka mu. maa ngi lay masawu dal sa parents yi te aussi war nga maa félicité parce que sama ñaari parents yi nekkaan nañ ba sama yaay sax dafa nekk en état nii. maanaam ko yàlla jàmm rek yaa ba gën a xam laa xëy daaxaan dama invité mais booy sa yaay weere nag saa yu xool di génn ak ay gardien ma sa père di loolu mooy débat koñ moom la ñuy mboyee mais man maire bi jaay bu ak tooy ci koñ bi ci cantine bi laa ko yëgee ah jamono ji moom instant ñëpp moom la ñuy wax sa yaay weere na ne ko Olof Njaay nee na ku nekk ci xare waroo rekk ñu jëm bàyyi ci xel bu baax a baax